بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مكي نغي سنت سنبرام سبحانه وتعالى di ñaan yàlla ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi sunu borom boole ñu ci mi nangul rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim alhamdulillah ñu ngi sant sunu borom xam ngeen ni ñu ngi génn ci jaamu yàlla gu màgg di weeru koor liñ ci doon góorgóorlu ci ay salawaat ay siyaam ay tabarruaat ci ay xayraat tafsir quran bi ñu doon def ci jàkka ji ak toog di ko déglu nu ngi ñaan borom bi yàlla na suñu borom nangul nu ko te fulal nu ko lu rëy li ci nekk muy layatul qadri yàlla na borom bi def ñu bokk ci ña nga xamante ni màng nañ ko ci aw yiw te it mu nangul nu te musal nu ci lu koy yàq comme ni ngeen ko xamee sunu dars bi nga xam ne moom lañ doon def ci àllarba ju jot tafsir bi moom alhamdulillah koor gi yépp moom bind boobu rek moo doon am koor gi jeex na niseer bi ñu am mooy continué waat bind boobu ci àllarba ju jot bu soobee yàlla ci diggan tafsirul quran al azim bi ñu doon def ak xayaatu saxaaba bi kon tey mooy nekk première bind ñu ne woon nañ ko def ab fàttali soññante rawatina lu jëm ci wàllu xam-xam donte buntu boobu fàttali nañ ci ay yoon waaye tey moom wet gi ni jaar bokkut ak fan daan jaar ñëwuma tey pour wane aaya ak xadiis yi ñëw ci ngëneeli xam-xam déedéet ñëwuma tey pour wane xam-xam daya bi mu am déedéet waaye dama war a ñëw pour wax ci ndaw ci boppam ni mu wasa war a conserver ak ndawam rawatina nag gëm ni ëllëg war naa mën a bokk ci ñi jëriñ umma bi te it yoon wa ca gën a gaaw mooy xam-xam mbokk yi ñu xam ni ak ndaw li ñu tuddee alshabab mooy alfatratu zahabiya fi xayaati l insaan loolu kenn ku ne ci ñun mbokk yi na ko xam li ñuy tuddee ndaw muy ab jeunesse mooy alfatratu zahabiya mooy période bi nga xam ni buñ ñëwoon ban melokaan lañ koy jox dañ naan mooy ooru dundub nit xam ngeen ni xeeti jëfandikukaay yi or bokk na ci ci gën a foor dund ak doomu aadama diggante fi mu juddoo di liir ba fi mu màggatee war a faatu am na ci moment boo xam ni moom or la ci moom mooy jeunesse nga xam ni gone gi dafa yàkkamtee doon waxambaane mag mi di bëgg a dellu siwaat nekkaat waxambaane ndax waxambaane li ko sunu borom may même ci doxidu àddina sax gis ngeen waxambaane yi la ñu soxla xam ngeen ni ku liggéey ba retraité nekkatoo waxambaane dañ leen retraité waa àddina sax noonu la seen doxalin fa kay fa ka diine ndaw nag bu ko yàlla subhanahu wa ta'ala baaxee nit ki te xamut li mu yore lan la mën na koo fooye ba xëy ñàkk ko mu réccu ko lii fànq nit ki dafa bari waaye nag yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg mooy gindi doomu aadama wàññi ko képp koo xam ne yàlla def na la ngay ndaw yëgal ni fi ne mag ñi niñ mel ndaw ñee leen ko def ndaw gee leen ko def xam ngeen ni mosul leen a gis ku xëy xëy mel ni mel ci alal wala xam-xam te mosul jaar ci ndaw loolu mënul nekk xam ngeen kenn jékki-jékki war a xëy nekk paa mel ni mel waaye ndaw kay moo defar mag mi xaw ma ndax boobu wolof leer na wala déet ndaw moo defar mag mi. ndax mag mi ni mu mel lim am nekkut mag doog koy am waaye tàggatu gi mu doon tàggatu bi mu nekkee ndaw tàggatu gaa ñor mu xëy nekk mag moo tax ma ne ni mag mi mel ndaw gee ko ko def moo tax benn waykat dafa xool ak ndaw ba mu yàgg mu ni cay layta shababu bu'a yawman fa ashtarihi aka neexoon ak ndaw doon jaay ci marché ba kon ne man damay dem jaay saak màgget jënd ak ndaw keneen ka daan ni layta shababu yahuud yawman fa uxbiruhu bima faala almashibu mu ne gis nga bu ndaw dellu si waatoon dinaa ko kalaame li ma mag def naqar bi ma mag- magal teg ndax magal yu bare bare bare dootoo ko mënati ci say jaamu yàlla xam ngeen ne xel mu neex bi ngay am pour jàng mag du ko man mag ba gën a ko de da koo mënul sawarte gi ngay am ci jaamu yàlla dëgër gi ngay am ci xiyaamul layl yooyu yëpp mag du ko am gone moo koy gën a am moo tax am na genn góor gu ñu may nettali gu gu gu wax wax ju ju nuru lu reelu waaye wax la joo xam ne njàng rek dëgg moo ci nekk dafa amul njaboot mu jël yëpp yóbbu daara ji mu ni kër gi benn innocent moo fi am muy man muy joxe dépense xoolal xoolal kooku yëg-yëg boobu muy waxee kër gi ba kër gi daj benn innocent moo fi am muy kii joxe dépense ndax kooku moom mënta ñàkk a joxe dépense waaye mu ni kër gi moom innocent dootu fi amati kooku man la ma dégg ci wax ji mooy réccu na bu baax a baax a baax a baax te it bari waa na ay mag yoo xam ne tey wallahi bu leen ndaw laajoon ni ñu réccoo bu ndaw dellu si waatoon li ndaw yi def ñoom danañ def double double ba mbir maa ngi mel ni mbirum àllaaxira rek gis nga ñu dem ba àllaaxira réccu gu réy gi ñuy def pour dellu soot ci àddina mook mag mi parce que loolu du nekk mag mi dafay réccu ngir bëgg a nekkaat ndaw waaye du ko mën a nekkaat déedéet mënul nekk ndax yàlla mu subhanahu wa taala def na rek wa minkum man yuridu llaaha zalil amri te doo dellu si waat ndaw googu nag mbokk yi bu la ko yàlla baaxee subhanahu wa taala profitoo ci parce que day dem gan la goo xamante ni moom gan ak dofa yam buy ñëw du tàggoo parce que da ngay jékki-jékki rek yëg ni am nga doole buy dem di tàggoo da ngay jékki-jékki jug rek tànk yi commencé bañ mook gan ak dof ñoo yam buy ñëw du tàggoo buy dem du tàggoo foofu nag ndaw li ci boppam na gëm ni lépp lu rëy ci àddina te li war a rëy ci kanam nit mooy xam-xam mbokk yi waaye warul nekk leneen dëgg la nag foofu dinaa leeral ñëpp mu ñu mënuñoo nekk ay boromi xam-xam fi ne ñun ñi ñëpp buñ jugoon dogg ci ni dañoo bëgg nekk ay boromi xam-xam ñu ñëpp laxasindoo jàngee ndoo te jàngi nag teg ci du tax ñu nekk ay boromi xam-xam ñun ñëpp parce que yàlla du ko defee noonu waaye léegi nag kan ci ñun mooy yaafus yaafus gu doy ni mu ne ah man ne kon xam naa man waruma bokk ci ñi koy doon kon xaaral ma teel a arrêté xoolal googu ñàkk jom maanaam yow kay d'accord buñ nee ñëpp mi ngi mel ni ñu ni mbooloo mi dugg sa war a bari nañ yow nga ne ah mbaa du ma ca bokk xaar ma toog xaar rek lu ma am jël kooku dof dëgg moo koy wax kon ñëpp du ñu nekk ay boromi xam-xam waaye yow gëmal ni da nga koo war a doon ba keroog ñuy dem ba fekk mënoo koo doon suñ demee nag ba mënoo koo doon nga doog a xam ne dogal suñu borom ñëw na waaye gis nga ndaw borom bi subhanahu wa taala da koo defal ci ay imkaaniyaat lu bare bare bare bare mbokk yi tey tey la nit ñi ndamoo sama doom dafa dem Italie sama doom moo tabax kër gi sama doom moo nangam déedéet gis nga bu njëkk man xamuma ci taarix taarixul islam xawma ci fu waa waxuma waxuma waa diine de waa addina bi fu ñu doon ndamoo loolu xawma ko man man kay li ma xam mooy kër goo dugg fekk fa borom xam-xam li ma xam mooy jigéen ci boppam bu doomam masaana nekk borom xam-xam moom dafay jàpp ni ak ñaanam nangu na lim bëggoon ci addina lépp am na ko li ma xam kay mooy ay yaay yu doon jur seeni doom di defar ak a megg-meggal ngir nañ nekk ëllëg comme diw fi naa joxe nañ ci misaal yu bare bare yaayu sufyaan athawri yaayu xasan al basri yaayu sufyaan ibne uyayna yaayu imam awzaai yaayu imam buxaari yaayu imam ibne hajar yaayu ibne taymiya ñooñu ñëpp defe naa ay dars joxe nañ ci ay misaal ci kenn ku ci nekk ni mu doon xëccoo ngir na defar doom joo xam ne borom xam-xam lay doon gis nga yàlla subhanahu wa taala dafa defal ndaw loo xam ni sànku mën na koo yomb waaye sunu borom mën na koo gindi gis nga kéemtaanu yàlla gi nag mooy boromi xam-xam yi ngay dégg tey ci lislaam yépp moom xam ngeen yéen ñëpp xam ngeen ay ndaw lañ woon ba pare moom ay ndaw lañ woon xam ngeen Shaafi ay ba ko Malik gisee Malik siggi xool ko xoolaat ko seetantal ko def ay géndee ko ci moom ci la ni kii bu guddee fan kéemtaanu xeet wi lay doon ci xam-xam kooku loolu la ñu tuddee firaasa cheikh al islam ibn taymiya sëriñ bi ko doon jàngal da koo xool ba mu yàgg mu ne gis ngeen gone gii bu màggee dana sut ak maasam ibn hajar it loolu la sëriñam ibn al mulaqin waxoon ci moom alxaafid al iraqi loolu la waxoon ci moom boo ko toppee ñu bare bare bare defoon nañ ko ci seeni ndaw parce que dañoo teel a ubbeeku waaye gis nga am na ci borom xam-xam yi ay ponkal yoo xam ni te lii mu nekk ñaax ñeel ki nga xamante ni topp na weneen yoon woo xam ni du yoon bu baax yoonu jubadi la gis nga borom xam-xami lislaam yi yàlla dafa def am na ci ñu bari ñoo xam ni buñ la waxee seen démb da nga naan déedéet kii du kii waa léegi li ma bëgg a jàngale foofu mooy borom xam-xam boo xam ni buñ la leen nettalee démbam da ngay sakk say nopp da nga naan déedéet kii kay mënta mel noonu tey mu mel nii waa fa kay fa kay yow mi nga xamante ni démb ju saltee noona yow amoo ko donte nag xam ngeen ni al islaamu yajubbu maa qabla wa tawbatu tajubbu maa qablaha l'islam moom bu ñëwee waaja moom lañ ko doon waxal ci avant l'islam moom xamal ni yàlla nee na lépp bombardé nañ ko yonente bi saa sallam moo ko wax da doon def bàkkaar mu xëy tuub bombardé nañ bàkkaar borom xam-xami l'islam yi ci boppam da ci am ñoo xam ni seeni jaar-jaar yow boo ko xamee daf lay dolliwaat courage yow pour nga gën a moyaat gën a góorgóorlu mën naa ci joxe ay misaal yu gàtt ngir tomb boobu mën a leer misaal bi ma ciy njëkk a joxe mooy imaam ju mag joo xam ne siiw nañu xam ko mooy al fudayl ibn al ayaad defe naa woowu tur du bees ci suñuy nopp tudd naa ko fi marratin wa karraat defe naa fi xutbay jumaa joo xam ni ñu ngi ko def ci wax ju am solo joo xam ni imaam fudayl moo ko doon waaree haaruna rachid gis nga fudayl ibn al ayaad onkalum agresseur la woon moo xam ni ku man li muy def mboolem kuy commerçant ci tund woowee la wépp daf doon tiit di bàyyi xel Fudayl ibn al-Ayyaad ndax ni mu ni mu ni mu mel ci kéemtaanu yàlla xam nga am na baat yoo xam ni comme borom xam-xam la bëgguma ko jëfandikoo comme walbatiku la nekk borom xam-xam donte lee démb la baat yooyu du ma ko bëgg a jëfandikoo ci moom waaye ci gàttal daal moom maanaam chef agresseur la woon ba mu jeex gis nga nit ñi dañoo demoon ba nit day toog benn place nit ñi tey ngeen dee pour loo ngi ñëw rek faa yi jóg daw xam nga loolu di xale dañ koy tiitalaate tey ngeen dee diwa ngi ñëw maanaam tey ngeen dee fudayloo ngi ñëw rek paa yi daw parce que fudaylu ni meloon lam def ca ca loola bëgguma koo tudd it nag ndax borom xam-xam la bu doon beneen nit sax ma mën koo nettali waaye comme borom xam-xam la du ma ko bëgg a nettali waaye daal ci gàttal benn bis la ko yàlla baaxe subhanahu wa taala muy agressé ba ni cëpp ci benn buntu kër fekk guddi la ñuy nelaw bi mu tëbee miir bi di agressé ci la dégg kuy naafi la guddi allahu akbar gis nga yàlla bu la dañuy gindi dafa mel ni daal maanaam yow da ngay fipp pour tàbbi ca géej ga sunu borom di la xëcc pour nga dem ca jéeri ja mu dégg waa ji jàng alam ya'ni lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah xanaa jotut nag ñi gëm yàlla seen xol yi fuddatu nag léegi dellu ci yàlla fudaylu nee na mu mel ni aaya ji aw rëkk la ci man ma taxaw mënatuma bouger mu ni fi ma taxaw ma taxaw taxaw taxaw taxaw bu yàgg xamut lu muy def mu tëbaat miir bi génn bi mu tëbee miir bi génn nee na sama yaram waa ngi ne lasax aaya ji daal dugg na ma nee na may dox xamatuma léegi xamatuma fu ma jóge xamatuma fu ma jëm mu ni maa ngi lasax lasax yi dem rek mu ni ma dem ba mu yàgg ma ni man daal xaaral ma jàdd ci wetu garab gii toog ma xalaat allahu gis nga mbokk yàlla wallahi ko yeboo ñaan ki gindee ko ndeke bal yi moom mi ngi daal rek ta jeexagul fu doylu nee na ma ñëw ba ci ginnaaw garab gi dégg benn caravane mooy mbooloo mu dem ay commerçant yu toogoon foofu da kenn ki nag he nga jug leen gaaw takk seen bagage yi bala ñëw fu doylu fekk fii waay nee na bi paa bi waxee loolu nag ma ni man ku bon la man Fudayl man ndeke àddina bi yépp ñu ngi may tiit te man tiituma ki ma moom Fudayl nee na foofu laa tuubee gis nga guddi googu da koo jooy ba bët set gis nga àddina bi yépp ñu ngi tiit parce que alam ya'ni lilladina amanu moo ko rëkk balaa muy xool yëf yi fu mu dal beneen wax ñëwaat mooy Fudayl jug leen gaaw balaa ñoo Fudayloo fekk fii mu ne man nit ñi ñépp ragal ma te man ragaluma yàlla mu ni foofu la jaaree tuub yaakaar naa kan mooy fudaylu moom jërut waxaat lu bari ndax imaam la joo xamante ni mooy zahidu ahli dunya fi zamanihi abdullah ibn al mubarak benn bis dañ koo laaj waaye yow yaa ngi wax nit ñi dee leen dëddu àddina te yow moom gis nañ la ngay commerce mu ne wallaay bu dul woon ak ñeenti nit ñii ma bàyyi commerce parce que ñooñu jaral nañ ma may liggéey di leen dundal te fudaylu ca la bokkoon fudaylu ibn al ayaad ak hamad ibn zaydin ak Hamad ibn Salama am na ko ci topp man maa ko fàtte muy ñeenti nit mu ni ñii ñoo tax may commerce mu ni bu du war a ñoom ma bàyyi commerce parce que jàpp naa ni ñii ñoom mat nañu di dundal Fudayl ibn al-Iyad dem na ba ak ñàkk di ko rey ba muy waaj a dee waaye nee na allu kenn du ko lekk lu dul alalu Ibn al-Mubarak bu ko Ibn al-Mubarak joxee daal dina jël waaye keneen ku ko jox même Harun Rashid bu ko joxee du jël ila axirihi kéemtaan suñu borom la woon boo xam ni wax dëgg yàlla mboolem ñiy wax ci zuhdu muy dëddu àddina duñ wax mukk ba nag te tudduñu Fudayl ibn al-Ayyad benn ngoo jàpp naa ne ndaw li kon war naa xam ni nu nit lu nit ki sàggan sàggan sàggan téye goo fee sax war ngaa mën a dëpp am na imam ju mag ju ñuy wax imaamu Shafii ay defe naa ñun ñëpp dégg nañ turuwa kooku moom kéemtaanu suñu borom la woon ci xam-xam imaamu Shafii ay yàlla daf ko defoon mu nekk ku bëgg way bëgg way ba nga xam ne xam nga jamono jooju ay musique amul woon way moo amoon way li may wax lépp jeunesse bi moo moo moo tax may wax gone gu ndaw la bëgg way trop foo ko fekk rek mi ngi way di te nag yàlla daf ko def imam Shafii même sept ans ci la mokkal Qur'an moo tax loolu tey jii bu ñu gisee nit ñu koy def du kéemaan de yàggu fi yàgg na fi de juróom-ñaari at ci la mokkal Qur'an gis nga bi muy am juróom-ñeenti at fekk na mokkal na ay téere xam-xam yu bari imaamu Shafii nee na dama daan bàyyi ba jant ba weer wi leer guddi gi rek ma génn xam nga imam Shafii yaayam bokk ci waa Quraysh baayam bokk ci waa Quraysh waaye yaayam ci giir Quraysh gi yonent bi bokk ci la yaayam bokk léegi yaayam dafa jóge woon Màkka dem sëyi bàyyam teel a faatu lool mu xam ni xel comme fii tumuraanke def mu ni naa delluwaat màkk ñibbi bi muy ñibbis ki la ëndaale xale bi muy Shafii Shafii topp way yi rek nee na benn bis fekk weer waa ngi toll fii ñu toll muy ay fukki fan ak ñett ak ñeent ak yooyu di leer nee na ma génn ci pegg kaaba gi rek commencé di way nee na may way di way di way ba mu yàgg rek di way benn góor daal goo xam ni mooy wër kaaba gi moom laa jékki-jékki ba mu yàgg rek mu ni ral aw xët mu xët ma ci ginnaaw nee na bi ma xëtee mu ni àddina bi yépp kon ay way la rek ba keroog ngóor siy dee naa dem yoonam gis nga kàddu googu ci la ko yàlla gindee allahu akbar àddina bi yépp da nga ko nar a way rek ba xëy dee nee na góor gi dem yoon ba léegi xamul ku mu doon affaire bi mu dikk nettali ko yaayam yaa ji ni ko wallahi yàgg na ma sujjóot di ñaan yàlla yàlla def la imaam moo tax sa rëkkawte yuy bettu ma xoolal kon nekk yaay yàgg nañoo waajal seen doom mu ni ko nii nga mel da neexuma munuma ci dara yàgg na ma sujjóot di ñaan yàlla nga ne mu ni ko saafi ay mbaa xam nga ne li tax ma jëlee la sa dëkk baay indiwaat la màkka mooy pour nga préparé wu nekk imam ak sa làmmiñ wi comme waa Quraysh nga arab yi set wicc saafi ay fa la tàmbalee di jàng gis nga ni mel ci la ñëwee ci Malik ci la ba mel ni mel yaakaar naa ne demoon na ba ay nit dañ maanaam ci wàllu fiiraange ngir rek kii moo ne ci ngiru Malik kii nekk ci ngirum nangam am na nit ñoo xam dañ daan def bay xunut naan yàlla yàlla nga rey imam Shafii ndax ñu na xolo te ay jullit la ñaa pour wan la fitna yi ni mu bare woon ci àddina bi xam ngeen lu ko waraloon mooy Shafii daa nekk ci ngiram Shafii ñee nekk ci ngiram nangam te am na yoo xam ne Shafii da ko doon critiqué ci ngir mi benn ndongoom benn bis mu ne ko yow de nit ñaa ngi xunut di ñaan nga dee mu ni tamanna rijalun an amuta wa in amut fa tilka sabilun lastu fiha bi awhadi mu ne am na ñoo xam ne dégg naa de yaay ñi ngi ñaan naan naan dee waa léegi bu ma dee après ndax dee da di ndab loo xamante ni maa ci ndëkk njëkk a naan mu ni déedéet njëkkuma cee naan de dee wa in amut su ma dee fa tilka sabilun yoon a ngoog woo xam ne lastu fiha bi awhadi bu ma leen jiitoo danañ ma topp kon ragaluma dee ci buntu boobu boo jëlee beneen imam te junj na tudd naa ko sànq mooy abdullahi ibn al mubarak gis nga abdullahi ibn al mubarak li yàlla nattoo woon Shafii loolu la ko nattoo woon muy bëgg way foo ko fekk muy sadd ay way rek xam nga jamono jooju jamonoy way la woon moom nag da cey boole woon yoru xal xalam xam ngeen xalam genre riiti yooyu loolu la ci boole woon nee na day bàyyi ba guddi jot moom it bu xale yi góor yi dajaloo rek mu ñëw yoru ak riiteem moom it commencé di leen wayal façon way woo yaakaar nag da ko daan way waaye xoolal yàlla subhanahu wa taala hakimun alim te it doomu aadama lu mu sàggan sàggan lu mu arrière arrière bu ko yàlla nammee bu góorgóorloo rek mën naa defar ibnil mubarak mooy nettali nee na benn bis damaa jël réeti gi commencé di réeti di way fe naa am na bayit boo xamante ne ko doon way mi ngi tàmbalee alam yani lil gaaniyaati an tatar an tatarannama ah waaw waykat yu jigéen yi moom xanaa jotut nag ñu daal di ñëw ñoom it nag di riiti comme man nee na mu daal di préparé ba tëj riiti gi ba dara desul lu dul riiti rek affaire bi bañ nee na mu fàtte lim doon way xam nga moo ko way moo ko kéré moo ko way moo ko mokkal waaye mu fàtte lim doon way nee na mu riiti riiti affaire bi bañ nee na bi mu riitee riiti affaire bi bañ ci la jékki-jékki dégg riiti gi naan alam yani lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dikrillah moom xamul fa wax ji jóge waaye daal nee na moom ci lii la koy déggee allahu akbar wayit way bayit bi mu doon way fi mu tàmbalee fa la way wi tàmbalee muy alam yani lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dicrillah xanaa jotut ñi nga xam ni ñoom ñoo gëm yàlla seen xol yi delluwaat ci yàlla nee na bi loolu amee ci la daal di sànni riiti gi ci suuf day dellu siwaat ci yaayam moom it déglul seen xissa ñoom ñaar dañoo nuroo gis nga bi mu dellu see ci yaayam dani ko man de dama riiti riiti riiti tey riiti gi bañ may riiti dégg son bu naan alam yani lilladina amanu an taxsha qulub li dicrillah yaay ji ni ko wallahi démb ci guddi laa mujjee julli di la ñaanal yàlla pour na nga gindeeku gis nga boo ko toppee imaam yu bare bare bare bare bare ci buntu bii la xam ngeen Abu Dar gis ngeen ko moom it li ma waxaloon Fudayl ibn Ayad moo ko daloon Abu Dar imaam la woon joo xamante ni lan la woon moom hmm. Abu Dar waaw lan la woon laa wax lu mu doon def avant muy tuub agresseur bu mag a mag a mag a bu jëkki tayoo sax waaye gis nga ko yàlla subhanahu wa taala gindi na ko maanaam yii dama ko doon andi ka misaalin rek ki ma ciy mujjee mooy imam joo xam ni ñiy jàng xadis xam nañ ko ñu koy tuddee alqaana bi gis nga imaamul qaana bi ponkalum borom xam-xam la moo xam ni kéemtaan suñu borom qaana bi nee na dama moom it agresseur la woon te gars yi daal dafa mel ni daal agresseur way rek la woon nee na benn bis dafa séen benn borom mbaam muy ñëw mu ne xaaral mbaam mi daal xaaral ma rey borom mu jeex fekk mi ngi yore benn paaka bu gudd ndeke maam mi imam Soxba mooy ñëw Soxba nga xam ne mooy amirul muminina fi lxaditi fi zamani nee na mbaam mi yegg si ma daal di téye ci laabu mbaam mi ni ko paa wàccal mu ni paa bi daal di wàcc taxaw mu ni ma ni ko damaa bëgg nga nettali ma ay xadis yu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom fàqmaan bi de mooy wax loolu de moom xaala bi booba xale bu ndaw la ñi may indi ci ñëpp kenn du ci mag imaam soaba ku amoon fulla la mu ne ko xadis du ma ko nettali bandi bu mel ni yow mu ne ko boo ko def dama lay rey de daal ni xatee paaka bi génne ni ra soaba poñe jël paaka bi teg ci buli xaddis ni an rasulillahi wa illa aqtulu waxal ma xadis ci yonent bi wa illaa ma rey la léegi mu ne ko xaddathana fulaan an fulaan an fulaan an fulaan an innabii sal allahu alayhi wa sallam inna mimma adraka annaasu min kalaami nubuwa ida lam tastaxyi fasna ma chit diw nee na ma diw ni ma diw ni ma diw ni ma mu jëlee ci yonent bi yonent bi nee na bokk na ci liñ jëlee ca waxi yonent yu yàgg ya mooy boo amatul kersa lu la neex defal mu ne daal bi xadis bi daanoo paaka bi dañuy putt ci suuf xamatuma lu ko waddal ma taxaw di xalaat ci xadis bi nekk ca la ko yàlla nar a gindee moom it gis nga waa ji foofu la bàyyee agressé ñibbi si moom it yaayam xas ko xasa xasa xas ba mu dogg ci ni suba day jàggi waaye problème am mooy nee na soxbaa fi borom xam-xam te kii rusati na maa taxaw ci kanam di jàng sama waxi démbu ja kay moom du ma jàkkaarloo teg moom yaayam ne ko boo bëggee ma takkal la say bagage nga génn dëkk bi sàkku ji xam-xam moo tax xaana bi loolu moo tax jàngul ci saafe ci sooba bi gars yi bàkkoo ku ne loo soloo ci sooba moom benn xadis boobu la am xadisat ba mu xam ba mu nekkee fàqman la ko solo woon benn bis mas naa déglu docteur Ahmad Lo mu wax wax ju am solo waaye waxam jooju dama ko yére yére yére ba sonn xawma kañ lay junj bëgguma ko woon a xam ngir bëgg a xam waaye dama ko bëggoon a xam ngir dolleeku daf doon joxe misaal ci yu mel nii ba tudd benn misaal mooy bii may bëgg a tudd mu ni imaam abdullahi ibn al mubarak da doon dox moom yàgg benn agressé ñëw di ko agressé xam ngeen ibnu ba ponkal la woon moo xam macha allah ibn al mubarak ni cëpp ci fas wi wàcc ni yóot waa ji xëcc dóor ko bam ni waali yeew ko yóbbu ko këram ni ko tey ci samay taalibe ngay bokk dama lay jàngal gis nga ne agresseur bi moom la ibnil mubarak dóor yeew ko indi ko ci këram nee na yeewaayam booba ca la ko jàngalee ba bi mu paree imaam la mu ni imaam la joo xam ne docteur mooy nettali mu ni imaam la joo xam ne su ma tuddoon turam yéen ñëpp ngir yiwu ci yàlla kan la ba léegi nag kàggu yi jàngale dund ibnil mubarak yépp daanaka yër naa ko ngir xool rek nga xam ni kon pour wan la misaal mel ni yàgg naa am ci sunna waaw léegi mbokk yi su fekkente ni ku dem ba àgg ci wuyu fii moo mën a dem ba nekk imam fii koo xam ne yow àggoo fee kon boo jugoon tey pour góorgóorlu est ce que du yow yaa gën a am yaakaar pour yàlla dimbali la uhum kay tomb bi ci bi ko tëj mooy gis ngeen innahum fidyatun amanu bi rabbihim ci asxaabul kahf nit ki saa bu jógee mu dogu gis nga lim bëgg a doon saa bu dëggoo ca dogu ga yàlla may ko ko asxaabul xarya ba ñuy génn ay ndaw lañ woon amuñu xam-xam yoruñu dara waaye nag seen dëggoog seen sérieux yàlla dimbali na leen faat na leen téeméeri at may leen lim leen may ñuy jàng seeni histoire ba yomal qiyaam kon loolu mooy soññaat ñeel nu ñu gën a góorgóorluwaat ci xam-xam gën a góorgóorluwaat ci ay jaamu yàlla waaye gën a góorgóorluwaat ci bañ a xeeb suñu bopp li ñuy tuddoo uluwul himma mooy nañu rëy ay mébét kenn ku nekk na gëm ni moom war naa mën a nekk imam fi diin nu ngi ñaan borom bi mu defal nu ko defal ko sunu njaboot musal nu ci yàqu ak yàqule musal nu ci tayal ak sànku di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ci àddina ci àllaaxira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain